catastrophique bari njublang bari jaxase bari parparlo bari politique té loolu ban kay départ ñun gisewuñ ko won non motax ki nga xamantene mom lañ dënk distribution de riz bi muy Mansour Fay ñëpp xam nañ da dafa échouer té dafa leer ni dafa échouer té au delà da ngay xol Mansour Fay limu yone wa Ndar mom di wax waxu gusi ak waxu sombi alors que ñun ñi ñi ngi jël tay di jox sun traite kon nag Ndar dañu wara xam ni ki ñu dénk mbir mi mom nekkul leen fi mëno ñëw Ndar une ville tricentenaire

kenn mënu ko bañ a wax damay wax waa Ndar aussi ni leen nan dalal seen xel ñii leur temps à la mairie leur temps dans le gouvernement leur temps à la tête de l'État sont comptés parce que Sénégal yëpp génn na si ñoom doon nañu xaar ñu ñëw ci corona doon nañu xaar ñu ñëw ci mbas mi ñoom ñu jël lépp li nga xamante ne dañ ko war a delloowaat sénégalais parce que sénégalais ñoo cotisé seen 1000 milliards. mais gisuñu loolu au contraire ñu li ñu gis mooy ñoom dañuy def politique ci biir mbas mi di jël di profité ci feebaru askan wi di ci def lu neex parce que tamit gis nañ fi ay scandale yu dul jeex ci corona bi déjà attribution marché de riz bi ñëpp a ko déploré nga jël koo xamante ni libanais la sénégalo libanais la mais yënguwul ci mbiru ceeb ci li ñu ñuy wax et pourtant moom nga jox un marché de 17 à 18 milliards parce que lan la xaretu waa régime bi la loolu c'est scandaleux mais bi gën a rëy ñu koy wax ci scandale mooy le 17 bi nga xamante ni Mansour Faye mi ngi taxaw moom ñàq di def interview di menacer yéen journalistes yi ñu leen remercier aussi sen teewaay Mansour Faye taxaw à travers l'un de vos confrères di ko menacer nan dama lay porter plainte ci ab question ndekete le 17 boobu ñom ñay le décret 2020 964 di créer honoraria bo xamanteni ni jëriñul dara lu caser un personnel politique vieillissant un personnel politique bo en termes de rendement et en termes de plus-value mëno wax ñi lan lañ le Sénégal kon dal bu ñu yamee ci ñaar yoy rek sans sans sans waxaale euh, distribution bi nga xamantene ci ceeb bi ñëpp xam na ni revenu bi dañ ko faussé parce que boy wax ñi nga xam ne dañ impacté wu ci mbass mi journalistes yi si lan bok ñi impacté wu ci mbass mi chauffeurs yi si lan bok ñi impacté wu ci mbass mi sa borom salle de sport ci lan bok borom restaurant yi si lan bok ñoo ñëpp nga bàyyi len fa wala pour l'essentiel nga bàyyi jël yow say clientèle politique parce que peut-être amna yenen yeneen dessin yoo xam te ne koy jël say clientèle politique jital len ci mbiru distribution riz bi lolu dafa doy war moy wone ni président Ousmane Sonko lam doon wax rek mo amat ñom sen rapport avec état moy politique mo nek sen ADN politique politicienne sen rapport ak état moy lan moy jouissance te lolu dañ koy déplorer. li yëpp nak ñun daan jëlaat sun temps ñëw ci surtout par rapport ak Mansour Faye échec bi mu am ci distribution ceeb bi que Saint-Louis dina ci def ben interview def conférence de presse bo xam tane dañ koy yaatal ñom ñëpp ñu ñëw tok ñu wax ñun lan moy propos parce que quand même ñun au moins on aurait pu nous intégrer wala nous appeler ci distribution au au MES pour nous xam nan la demee ak en tant que part d'opposition première part d'opposition mais on nous a royalement ignoré lol c'est scandaleux may waxati aussi ñu ni li maire bi jox c'est affiché à hauteur de 170 millions mais quand moo mën a ça les seuls masques rek 11 millions la mais quand moo mën a jàpp loolu si ligne ñu Saint-Louis en plus de ça ñu jël siège à APR transformé comme mairie Saint-Louis képp ku doon a donc ñun la da ngay mairie Saint-Louis pour di ko fa faire autre mais siège APR kañ la nekk mairie Saint-Louis loolu aussi waa Ndar dañ ci war a wax ñun nag pour delloo si waat lépp li nga xamante ne Ndar seen seen ngor seen jom seen fulla seen noblesse bu sooba yàlla ñoo ngi koy waxaat fii lépp lu nu mun daan ko def pour ñii abal nu ñi nga xamante ñoo gëm Ndar en collaboration ak waa opposition bi ñun ñëpp ñu ñëw taxaw seen kanam pour jël leen fi jëlee indi fi leen lu bees di leen gërëm leen sant